julli ci yonent bi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñu fàttalante tey euh, xew-xew la boo xam ne suñu ko masaan di séentu ba dugg ci fan yi ñu tollu yëg-yëg yëpp ca lay dox jëm waajtaay yi foo toll gis lu koy màndargaal muy xew-xew boo xam ne am na ñooñ danañu ci def lu baax lu bari yàlla na ko yàlla nangu waaye bokk yi xew-xew bi muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar njàngum kese la ndax bokk yi bis bu bu ñëwee gannaaw ba waajtaay wi ma junj léegi ne gàññ ñii di ko waajal ci nu ñuy def ba jëfe ndigalul sëriñ bi yàlla na ko yàlla jàppandal waaye am na ñeneen it seen waajtaay mooy nuñ fexe ba fàggu ci alal ju bari bu ñuy dem yóbbaale ko ñooña it lu ca doon lu leew yàlla na ko yàlla yombal te mu rees ak jàmm waaye xew-xew la boo xam ne jullit yi war nañ cee jànge ne ñoo bokk lenn lu ñu munta séddoo muy yàlla tabaraka wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak alquran al karim mi nga xam ne saa bu ñu wootee ne màggal gi bi sàngam la fu way mën a nekk te bokk ak waa Tuubaa yàlla pas-pas bi bokk ko bokk ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pas-pas bi bokk ak ñoom alquran di ci àttewu di ci dellu da ngay yëg ne ndekete yow wéetoo ci li nga nekk muy gëm yàlla ci pas-pas bu leer gëm yonent bi sallallahu alayhi wa di jëfandikoo alquran ci pas-pas boobu danga gis fenn fu nekk mbokk jóge fa di wax lu ko booleek waa dëkk bi ba tax mu war a ñëw ñoom ñëpp yàlla na yàlla indi ci jàmm delloo leen ci jàmm waaye da jàng ci màggal gi it ne e, ndekete yoo nit lu mu am war na ko mën a bokk ak ay bokkam ak lu ñu mën a bokk rek ndax da gis ne dinañu génn seeni kër génn seeni néeg yoo xam ne du ñëpp fa daa dugg dugal fa ku nekk waaye bokk ak ñoom lekk lañ am akus néew mu néew mu bari yàlla na ko yàlla bari te lépp lew waaye des na ci jàngat ak njàmbaar ndax jàmbaar waroom xam-xam yi nee nañu doonut koo xam ne làmb jëm dem ub ko waaye jàmbaar bokk na ci ñemee ñàkk alal te ñemee muñ lu metti nangoo jéggale des na ci jànge ak muñalaate ak ku njàmbaar ci lu waay yor bu dee lenn la sax bu déggee ku koy jàmbat mën na ko koo jox waaye danañ ci jàng wut lu baax wu lu bari ñu bari di wut nga xam ne fépp foo xam ne jàpp nañ ne bi ñu fa dugalee seen loxo danañ génn ak lu baax ñu dugal fa seen loxo bis boobu nag agsi na waaye bokk yi li gën a rëy te mooy li lal bés bi dëgg dëgg dëgg dëgg te mu mat di waxtaane mooy bis la boo xam ne mënees na saa jàngate dëgg dëgg ragal yàlla lu muy jariñ nit ak itam mënees na saa jàngal jànge euh, ngóob mi nga xam ne ku teg tànkam ci ragal yàlla mën na koo góob bu dee ab tool lañ ko niróo leel waaye mënees na saa jànge it not bakkan ba moom ko fu la neex jaarale fa bañ di maslaak sa bakkan ci dara waaye des na si jàngate itam iraada gu dëgër maanaam pas-pas bu dëgër ci koo xam ne xam na la mu bëgg lan la tam doon lu mu war a bëgg waaye des na ci xàmmee it des na ci mën a jàng it melokaanu jullit dëgg dëgg dëgg saa bu ko lislaam soxlaa doonte bakkanam la mu taxaw temm ci joxe ko te bokk yi e, séentu ak gàttandu fukki fan ak juróom-ñett ci safar war naa ànd gannaaw yooyu ma lim ak yi ma limut tam bari lool tamit ay bind yoo xam ne saa su nekk nit da ko war di nafar sant ca yàlla ndax sëñ bu mag bi nga xam ne moom la natt bi daloon ci kawam ba jàpp bañ jàppoon ko di ko yóbbu bari na lum jàppandalal waa réew mi loo xam ne lu fi jafe woon la ca ay jamono waxuma la ba mu ñëwagut waaye ba mu ñëwee ba am fi ab diir ndax bokk yi li tax ñiy yëngu ci wàllu xam-xam bis bi bu ñëwee ñu war ca sant yàlla sant ki mu jaarale mbir mi ci loxoom muy Cheikhul Khadim mooy toll na jamono yoo xam ne am téere boo jànge xam-xam jafe na lool moom mu daan sol aw dàllam fexe ba rongooñ yooyu fer ci ñi nga xam ne dañ ko bëggoon te mënuñu koo ñàkk wax nañu ne am na téere yooyu su ko masaan di jàng dana dem ci ñaari barab bu bokkut ak fi mu dëkk dana jóge fi mu dëkk dem ci ñaari barab bis bu set doolu dellusiwaat barab bu njëkk ba lu mu fay wuti mooy ku ko abal téere bi muy jàng mu bind ca wetu ëllëw ba mu fees wala yaari wetu ëllëw ba amatul fu ko def mu soo ko jàll fa mu koy jànge jàng fa door a dellusiwaat këram ci la dem ba nu mu ci ro nu mu ci euh, ferale rongoñ yi ku maroon xam-xam ba taxoon koy jooy mooy téere yooyee gënoon na jafe nga xam ne kenn mënu ko woon a am am na ci ba mu ko jàngee ba noppi da ca ab téere boo xam ne bii moo gën a leer fuuf yéen nit ñi daan wuti waaye mas nañu ko jox mbub mu baax moo xam ne ab téere la gisoon ab naar yor ko yépp mën nañu tudd ay tur waaye li ci am solo mooy mu gën a neex a jàpp ci nit mooy ab naar la gis mu yor ko mu bëgg ko lool ne nu may def ba jot ci mu ne ko dama koy jaay ci nàngam mu ne ko nañ ànd ba fu ma ko mën a amee jox la ko nga jox ma téere bi léegi jëmatul fenn fudur fi naar bi jëm rek am na fu mu dem foo xam ne fekk na fa wóol la réew Mamoor Anta Sali Euh, ñooñu bañ ko gisee yàlla yakkal leen dañ ko ne déet mbub mii nga sol moom da nga koy daldi summi ndax mbubb mii du sa mbubb yow comme ni ñu ko waxee léegi soo solo ba génn ñu ne déedéet waajal ndax fa nga jëm lii akkati la mu ne nu ñuy def mu ne ko taxawal ma wutal la mu baax moo xam ne mooy gën mii nga sol daldi xotti mbubb mu baax mu ànd ak njiit laa yeeg la muy àndal mu sañ sa ba jekk sant ko gërëm ko ne ko mii ma solo nu ma koy def mu ne ko ko nga koy sànni mu ne négal ma sànni ji ko daal di koy sànni ca yoon wa nga xam ne buy dem fa lay jaar daal di génn naar bi ndax mbubb mi ma sol baax na ci yow mu ne ko lool ñi koy moom a gënal li ma ko doon jaaye mu summi ko jox ko ko sol la mu njëkkoon a sol naar ba jox ko téere ba téere yooyu nag lam ko doon daj ba amoon ko ba taalif ci ay téere yoo xam ne mën naa ëpp barke fuuf ba kenn duutu xam yam taalif yam ko taalife woon tudd loolu waroom xam-xam yiy gëstu xam-xam te xam-xam ñor leen te loolu ñépp la war amel nañ ko ci njukkal loo xam ne saa bis bi dellusee bu nee nañ ko ci sant la yàlla ñoom war nañ caa gën a sant la yàlla sëriñ bi ci taxaw gi mu leen taxaw yombalal loolu lu jafe waaye it ñi nga xam ne it tiitoon nañ ba ñuy wër di jàppaate kenn ku nekk ñu woo la ci ab ruq laaj la ay laaj ñenn ñu yóbbu leen gisatuñu leen ñenn ñu tëkku leen ñenn ñu xupp leen ñenn ñu xëpp leen kenn waru leen a gën a sant sëriñ bi ndax bi ñu ko yóbbee ba delloosi ko yëgaatuñu fi ko ñu woo di ko jàppaat am na koo xam ne boroom xam-xam bu mag la woon salma shi ta la woon bi sëriñ bu mag bi ñëwee Tuubaa gannaaw daa dundoon jamono joo xam ne tubaab bi da doon boole buur yi ñuy rayante bañ ba des ay benn bànn mu rey leen moom toog fi ku laalante woon ak ñoom dañ laa war a woo kookee bañ koy wër daa ñëw fekk fii sëñ Tuubaa boroom Tuubaa ne ko ñaanloowuma la yàlla ci sama yitte ji jàngloowuma la alxuraan bindloowuma la ab xaatim ñaanloowuma la ci suuf ñaanloowuma la ci am ndox neel tubaab yi bàyyi leen diw rek wóor na ma ne soo ko waxee danañu ma bañ mu ne tubaab yi bàyyi leen diw kooka ba mu ñibbee ci lañ mujjee lay waxtaan loola kooka ba sëñ bu mag bi demee ci géej gi ba def lu mat yenti at jëm juróom ca la wàcc ab liggéey bokk na ci li sëriñ bi daan tiisoo ci ay waxtaanam lu tax fekk ko fi yàllaa ko dogal mu neex ko lool moo tax xettali na aw nit ci wutal leen téere yu njànge xam-xam ba dañ ak réer jaar ci yoonu jub ba mën nañ caa tàbbee aljanna yàlla na ko yàlla dogal waaye tiinu na aw nit ci seen digganteeg seen boroom it ba fitna ju ñu doon tiit seen digganteeg seen moroomam jaam te jaaxle woon ca it ñooñu kenn waru leen a gën a sant la sëriñ bi ci bis bi kon bis bi bokk yi euh, bis bu ñuy wute lu baax la te mënees na ko caa am waaye nag bu ñu ko jàppee rek lu yàgg am rek nit ñi luñ miin daanaka daal di koy yab te loo yab dootoo ca mën a jariñu eh, da ngay dégg wàccaay wu nekk njëkk ko waajal danañ ci def nangam danañ ci def nangam waaye loola xanaa bu yàlla taxee yàlla rek mën na koo xam moo tax mu mat a bàyyi xel lool bépp barab boo xam ne dañ fay ñëw di fa wuti lu baax dañ fay dem di fa wuti lu baax eh, te yaakaar ko fa yàlla lañu fay fekk yàlla mën na leen ko faa jox yàlla na ko fi yàlla ko jox ñiy ñëw ñëpp waaye am na ñooñu it li ñuy wax naan ñii ras ñii gàmmoog ñii ras dem du benn am na ñoo xam ne bokk yi yàlla nañu ci yàlla musal dañuy joxante euh, ab dig ci ne nañ bàyyi ba àggal ca àgg ca màggal ka ndax lan màggal gi dana xumb doo xam ko ànd ak kii doo xam ko ànd ak kaa ñooñu itam yàlla na yàlla naa saxal seen i pexe te wëlbati leen bañ ñëw màggal si te yàlla génne loolu ci seenum xel am na ñoo ñit liñ jàppee fukk fan ak juróom-ñett ci weeru safar weesu togg yàq lekk naan moo ne jër jër sa limaale ndax bokk yi ku ne nit ñi ñëw leen ku ne diw ñëwal sama kër bu ngoonee sax bu ñëwee mu néew néew dana fekk ñu jënd mbuusu galaas def ko ci ndox mu sedd jox ko waaye am na ñooñ foofu lañ far féetale màggal gi danañ fexe daal ba lu waay bëgg lekk lekk ko loo bëggut lekk lekk ko loo bëgg naan naan ko loo bëggut naan naan ko léegi lu cay topp toog di waxtaan néeg leen nangam sax boo ko déggee néeg leen ñu andil leen nit ñi mënuñoo toog loxoy neen luñ gàtt gàtt mën nañ faa dugg ci loo xam ne seen yoon nekku ci mën nañ faa jëw nit mën nañu faa maandu ci ku ñuy jaxaseeg mbokkum jullitam mën nañ faa maandu ci kuy yëkkati mbokkum jullit di ca teg mbokkum jullitam ak i baat mu ne ca xiim léeg-léeg sax mu ne ah man de du ma miimal kenn te moo ne dafa jaadu woon ñu def na mag nga daan def am na ci koo xam ne mi ngi dëkk fii Tuubaa ku mës a wax ci nit lu dul noona danaan la da koo xamut rek waaye diw day loolu du jikkoom am na ci kook day bàyyi ba nga wax ba àggal mu yónnee ndànk ci ka nga doon wax ca moom mu ñëw mu ne na loo waxoon ci diw ñu ngi nii toog de far ko nettali ko rek nettali ko gannaaw yóbbante la woon borom far na ñëw yóbbante yóbbante marché woon kuy dem marché ca gën a gaaw moo tax eh, ñii ñëw ñëpp yàlla nañ xam li taxoon sëriñ bi ne nañ ko ci sant la yàlla ko ci sant yàlla ndax bokk yi eh, ba tey jii saa su nekk ñu wax ko waxaat ko sëriñ bi ñi ko jàppoon yóbbu ko mënuñu laa wax lu mu def ba tey jii waxuma laa lu mu leen def te bu tooñ dee am ñoo ko war a tooñ ndax ñoo jóge woon seenum réew di taxawaalu ba ak Sénégal def defin woo ma leen wax boole ñi leen doon jaaxal bañ raayante ñoom ci seen biir ndax dañoo amoon doole te amuñum xel ba mu des ay benn benn ñu faagaagal leen ñoom ñoom toog fi ñoom léegi nag fu dara yëngooti ñu ne kooku lu mu ko yëngale ak lu tax mu yëngal ko waaw sëñ ku fekk nit këram ak ki bokkam ak i njabootam ay doomam ak soxnaam nga ne ko li ngay yëngal lu mu xanaa foofu la maanoo di ki tàmbalee waaye di fab di di com di di di fab nit ñi di leen yóbbu ñii ñu rey leen ñii ñu sànk leen ba kenn gisatu leen ñii ñu découragé leen ba kenn waxatul lam doon wax loola moo ca boole sëriñ bi bokk yi moo ne sëriñ bi mënoon na bu demee ba ñëw ne damay fayu te bu doon fayu dana bari ñu ko fayule dana am ñu topp ci ginnaawam te yàlla mën na ko caa may ndam waaye nag daf na nañ ko ko defal bis bi muy sant yàlla ndax ña ko doon yóbbu xam nañ lim bëggoon lim bëggoon mooy mu jël fetal jox ko kii wala mu jël jaasi waaye ab xeex booy xeex ak gone loo ko ëpp ëpp doole bu la xëppee suuf nga fattu kepp def na la dal xamoon nañ fi xeex jëm muy ci pas-pas yi fexe ba jëmbat pas-pas boo xam ne dafay sax ba faw mu bind ko teg jaarale ci aw nit ci ak nekkam am na mag moom suñ Masamba Jóob Sàmm dañu ko ne sëriñ bi bàyyi ko na fi mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alhamdulilahi rabbil alamin wa bassir wa bashir sabirina alladina ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun foofu la ko teg alhamdulilahi rabbil alamin ñu ne ko alhamdulilahi moo ne ci jaaxal ni nga demoon ak moom nga xam ne yow bu yoonu mu di sasu fi nga nekk ak ni nga jaxasoog sëriñ bi ñu ne la bàyyeekoo na fi te tubaab bee ko yoroon nga ne alhamdulilah mu ne ah daf ñu doon gunge rek teg nañu ci aw ba ñu ngay seen dëkk ba te duñu wàññi bokk yi boobu pas-pas daa war a beesaat peq war a dellusiwaat saa bis bi dellusee ñu xam ne euh, kenn ku nekk néewuñ la nga jéem a doon sëriñ bi ci pas-pas ci dogu ah kañ waaye sañ nga koo roy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi gën ñëpp mi Sëriñ Tuubaa woon euh, ci moom la topp di ko tagg ba naan yonent bi jaral na ko sallallahu alayhi wa njabootam gépp ñu joxe ko te yonent bi des fi bu ko laajoon. yonent bi jaral na ko bu dox ba nar a dogg luy gaañ ab tànkam moom mu lal ab lexam ca loola yonent bi jaar ci kaw lex bi ci des jàll waaye bu ko dara laal kooka la muy tedd tedd yàlla def ne roy leen ko. kon kenn nit ñu nit di tol ba léegi ko man a roy loolu pexem seytaane mënu koo weesu ginnaaw nekk dañoo nekk ci jamono joo xam ne kenn ku nekk day xëcc jëmale ci ak laf ñi nga xam ne ñoom dañoo féete ci Serigne Touba te ñoo xëcc jëm ci Serigne rek te nañ ko war a xëcc ndax am na ñoo xam ne defe nañ suñu waxtaanee Serigne Touba dëgg dëgg dëgg dëgg nit ñi bàyyi leen fa dem waaye déedéet ndax ñoom lañuy wax nit ñi taxul nit ñi nekk fa ñoom amuñu lu leen joxit Sëñ Tuubaa lañ leen toppe kon war nañ leen di leeral la bu baax a baax a baax na ñuy jaar ba mën a toppandoo Sëñ Tuubaa man koo ba soo melut ni moom it da nga raw ñu bari ni ko Sëriñ Saliou waxe woon ne buñ meloon ni yéen duñ ñëw duñ mën a buñ doon mel ni yéen duñ fi ñëw nee na loolu waxi seytaane la ak ku nar a yambare ak ku nar yaras waaye am na ñooñ ku leen roy da nga raw ñu bari yàlla nañu ko yàlla jàppandalal bokk yi foo dox ci dëkk bi it dana gis ay ay pancarte ay laafitaat yoo xam ne dëgg-dëgg terewuñu ci Touba ñi nga xam ne mënuta wër wër wër ba weesu Makka wala Madina ci ak jag loolu mënta nekk te Makka ak Madina ba fa rawatina Makka al mukarrama ba fa yàlla di woote aj daf ne yaatiina min kulli fajjin amiqin li yashhadu manafia lahum manafia lahum mën naa doon njariñul adduna ak njariñoo àllaaxira yépp lay doon mooy lan terewuñ ko fa yaxantu dañ ko fa digle sax ndax am na ñooñ bu ñuy ñëw luñ jënd lañ yor waaye duñu yor dara luñ yóbbaloo te war nañ a fekk lu ne gàññ lu dagan waaye bokk yi dëkkub sëriñ bi su fekkee bisub sëriñ bi daa jub wax naa ci tàmbali bi ne ñëpp ay ñëw am na ñoo xam ne dañuy ñëw ngir yàlla jàngat si fi sëriñ bi jaaroon ba am bés te di ko bëgg am ñoo xam ne dara indiwu leen lu dul lu ñu def ci seen poos yóbbaale ko waaye bokk yi ni ñuy def ci seen poos yóbbaale ko mën naa gën a rafet te loola ñi nga xam ne ñoom la dëkk bi ne ci seen loxo war nañ caa jàpp bokk yi yi ñuy taf ci mbedd yi li muy bari bari bari doo ci gis yaa ayyuha alladina amanu dhkuru llaha dhikran kathiran wa sabbihu bukratan wa asila di ko fàttali nit doo ca gis eh, yenn yi nga xam ne nit mënu koo ñàkk ñaan leen yàlla mu may leen sallu ala nabi ya ayyuha allazina amanu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina sallu alayhi wa daa waroon ne gàññ ci mbedd mi ñu di ko tax fu nekk ak udkurullaha dikran kasira muy tudd yàlla foo toll ak di ñaan yàlla foo toll ak di jéggalu yàlla foo toll istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi innahu kana daa laafitaat yooyu daa waroon ne gañ foo gis fu ñuy jaayee dara ñi yi ñuy jaay xamuñu ñu leen moom te alali murid yi la yóbbu loolu daa mat a bàyyi xel euh, léeg ñu def ci ay màndarga yoo xam ne ñi koy gis dañuy defe ne am nañ wàll ci dëkk bi te amuñu fi wenn wàll moo tax su magal gi ñëw doon nañ ko waxtaane weesu na waajtaay wi dañ cee war a bàyyi xel sew sew yooyu yépp yi nga xam ne dañu koy dugal ci màggal gi ci ay sila ay marchandise te fekk baaxatut baaxut ci yaram baaxut ci murit baaxut ci jullit yooyu yëpp da cee motoon a bàyyewaale xel waaye ana ñi yor dëkk bi ci wàllu adduna lu leen ñor mooy dugal nañ nangam ci ay tax ren ci màggal gi tax yoo xam ne boo ko dugalee doo ko jariñoo dañ ko yóbbu feneen nga bokk ak say moroomi sénégalais bokk wi loolu taxul ñuy woote màggal gi di woo jaaykat yeeg jëndkat yi ñuy tikk déedéet euh, fu ñu teg tabla boo xam ne day jaay daal war nañu faa teg tabla aaya quran wala baytu Sëriñ Tuubaa wuy fàttali nit ñi leen indi ci dëkk bi ba ku delluwaat image boobu des ci sa pas-pas des ci sam xel ak say gët ni image yi dese yoo xam ne day jaay lii di jaay laa te fu kawe lañ koy teg foo xam ne foo mën a di ko séen te fekk dara tax koo jóg lu alal kese kese bu bakkee ci màggal gi it waras na koo defaraat ba mu gën a jag bokk yi foofu la yonent bi nga xam ne du waxe bakkanam mukk te du juum mukk ba mu jógee makka jëm Madina wara gaa yi fekk ko fa dafa tànn dane woon na ñëpp dikk waaye bañ ñëwee dafa tànn ci biir ñi nga xam ne moom lañ àndal ak ñi àndut ak moom daf ne man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi képp koo xam ne li ko indi Madina mu fekk si ma yàllaa ko digle ma jiite ko mu ànd kook man dana ca am la ca yàlla dige waaye koo xam ne nag wutut Madina dara lu dul da doon bëgganteeg as ndaw mu dem di ko seeti ñu ne ko ndaw sa gàddaay na mu topp ko kepp walla koo xam ne it commerce am business am doxatut Makka ndax xaw na faa xat tuuti ndax ay clientam jullit yi ci ëppoon ñu tàmbali ko joxañ muy dawale ab business am diina it su ñëwee na ko wóor ne suñ jaayut ci moom jënduñ ci moom perte na ak dikkam Madina du am dara moo tax ñii ñëw fuñ mën a jóge nañu xàmmee gàmm ji ak dem di raasaatu déem te raasaatu déem ni ko kuy raas déem bëggee na la ko leneen bëggee loo xam ne mën na fa taseeg moom saa su nekk te loola koy ëpp doole su ko ëppee doole mën na koo teg loo xam ne bakkanam du ko attan wala aw fitam du ko mën a àttan kon màggal gaa ngu noonu daaw nag am na ñu ko fekkee woon ni ñun loolu bokk na li ci mat bàyyi xel am na ko fa fekke woon ni ñun daaw duñ ko fekkee ren fekk nañu denc leen ba noppi ñooña seenu yaafus taxu leen a dem ñun ñi fi des akus néew yàlla nañ ko fekkee te romb ko suñu njàmbaar taxu ñu fee des nañu bàyyi xel ne daaw ba ren fukki weer ak yaar la ku màggal si woon daaw soo wéyee di def la woote woon ci màggal gi muy lu baax xam nga soo ca nekkutoon xam nga su fekkee yaa nga ca woon na nga xam ne am na fukki weer ak yaar yu jàll yoo xam ne la nga doon def su dee lu baax la na ca teg sa tànk xamoo ba xam déwén dana dana ko fekkam de bu dee koo xam ne leneen a ko fi indi woon daaw na teggi tànkam xam ne ñi màggal si dañuy manqué par benn ba jeex takk te moom da cay bokk ni ki nga xam ne ña ko jëkkoon a woote noonu la ñuy rocc noonu la ñu rocc koo par benn ba ñu baree bari kenn gisatu leen ci suñ lu Mbakke bokk na ci ñi ko jëkk a wuute Tuuba ñi ko jëkk a woote anamu ba mu fi jógee léegi ay ati ati at la suñu Abdul Ahad topp ci suñ Abdul Xaadir topp ci sëriñ Saalihu topp ci Alaaji Bara topp ci ridwanullahi taala alayhim ajmain kon ñun ñi fi dese ku si néew nañ fedlewaat laxasaay te fu ñuy woote ñu di fa wuy ji bu dee yàlla lañ fa tudd ñu fexe ba ñu fay jóge jëlee fa yàlla ba des gan su fekkee leneen lañ fa woote ñu bañ caa dem bañ caa yeble kenn bañ ñu fa dégg bañ ñu fa gis ba faw yàlla nañu ko yàlla fekkeloo te daje lañu ci ak ngërëmul suñu borom te ngërëmul suñu borom bu ñu ko waxee mooy fa Sëriñ Tuubaa nekk mooy yóbbaale bagage bu dis gan ci lu baax te buñ demee it niñ ko fi doon defe buñ demee ñu fës ko yooyu ne wéyal ba ba àddunay tukki boole ko ci suñu def màggal gi muy suñu nafarukaay ci lan génn naa sama nekk jox ko nit ngir yàlla te xawma ko xawma yekk naa ndab jox ko ak li nekk ci joxe aw ñam boo demee ci alquran da nga cay fekk eh, aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yuufuuna binnasri wa yaxaafuuna yowman kaana charruhu mustatira wa yutcimuuna ataama ala xubbihi miskiinan wa yatiiman wa asira ala xubbihi mooy di jox loo xam ne nit ñi yow ki nga koy jox yow gën a euh, gënalu ko yittewoo waaye daa feeñal ak yittewoo te yow nga amof sag rek moo tax nga jox ko yutcimuuna taama ala xubbihi ak euh, aw itaamun fi yowmin fii yawmin di masxabatin yatiman da maqrabatin aw miskin da matraba lu am njariñ la waaye lu doon am njariñ la it su fekkoonte ne bataaxal bi lépp foo dox ci mbedd mi taseeg lu lay fàttali li la indi ci bis bi foo jëfandikoo ba noppi delluwaat ci lu baax fu ñuy jëwee nga jóg dem fu ñuy ràmbaaje nga jóg dem fu ñuy tege ci télévision bi Touba ba mu yàgg ñu bëgg a dugal publicité boo xam da nga ci gis loo wut a gis nga nga gëmm wala nga fay ko ba ca kanam nga taalaat ndax bokk yi télévision yeeg média beeg lépp ñi ngi ubbiku ci ñoo ñu ma doon wax rek lañ bokk mooy laafitaat yi benn la ñi dañ koy wax ñi di ko génne ñi di ko bind rek waaye kenn ku ci nekk mi ngi woote naan ay ci leen ma defal leen nangam ci màggal gi ay ci leen ma defal leen ci màggal gi ba di ci carte la aw nit sax naan soo dugalee nangam ak nangam bu màgg jàll danga am nangam loolu it bokkut ak màggal yàlla nu yàlla defal dégg